sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man tabiahu bi ihsaanin ila yawmi diin bismillahi rahmaani rahim barke cheikhul xadim jërëjëf Serigne Touba est-ce que Serigne Touba borom Touba moroomantewul mbokki jullit yi mbokki taalib yi noo ngi leen di nuyu yéen ñëpp. di leen ziyaare dibalu balu ñëpp àq ngir jëmmi Serigne Touba di bal ñëpp àq ngir jëmmi Serigne Touba di ñaan yàlla sunu borom moom mi nga xam ni moo sàkk njëggal te yërëm ay jaamam rekk tax yàlla na nu yàlla boole jëggal di ko sant cant gu amul ab àpp ci tànn gi mu tànn bu boole nag Serigne Touba di ko ñaan itam Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla may ko fan gudd ak wér ak tal ba li mu yéene liggéeyal Serigne Touba ci toolub lislaam bi mu liggéey ko nu ànd kook moom te daje ceeg ngërëmu sëriñ bi bokk yi noo ngi leen di nuyuwaat tey fii ci Touba Mbakke tey ci àjjuma ji tolloog juróom-ñetti fan ci maamu koor ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci gàddaay gi muy 1442 hijri juróom-ñetti fan ci weeru maamu koor fii ci Touba Mbakke almaxruusa di tolloog 28 22 janvier 1921 kon noo leen di nuyu di leen sant di leen gërëb di ñaanal ñëpp di sàkku ñépp ñaan ngir sunu mébét ak sunu yéene ci liggéey Serigne Touba di tàllal ñëpp loxo ñu ñaanal ngir nu mën koo eggale matale ko te mu daje ngërëmul sëriñ bi ginnaaw loolu xam ngeen ne ajuma ji nu weesu woon noo ngi tàmbali woon. ci waxtaan wu am solo ndax ñu baax ñi nga xam ni duñu sëriñ bi sax waxtaane leen njariñ lu bari da cee nekk sàkkantuma laag nag sëriñ Tuubaa moom kon moo tax ginnaaw bu noppee ci gànnaar muy waxtaan yi tukkib gànnaar bi xam ngeen ne ajuma ji weesu tàmbali woon nan muy première émission jataay bi jëkk bi sëriñ bi jógee ci yéen ak fi mu jaar fépp ba romb Touba te ngeen déggoon ko muy romb gu doy waar ci bëgg gum bëggoon a te yàlla xamal ko ne bu garab yi sax bu ci bu ci sa tege te moom lu mu bëgg bëgg mbir ndigalul son borom ko gën la mu bëgg Sëriñ Tuubaa lu mu bëgg bëgg mbir ak lu mu neex neex ci moom ndigalu suñu borom moo koy dàqal loola moo tax la mu doon bëgg Tuubaa lépp di ko nam bugg fee jaar ba mu jotee ndigalu su borom ni ko garab yi sax bu ci sa bët tege daa fàtte ni amoon nag cofeel ci bëgg a jaar Tuubaa ndigal la rek la daal dégmal ba tax na kon mu jóge fa jaar ndaam fanaan fa dem ndula ci Modou Sow chefu Bawol bi ko doon ñaan ni ko damaa bëgg a nga yendu sama kër mu egg njaareem waxoon nañ leen ko ci 1912 l'assassin 1330 hégire ba mu eggee njaareem ñi ko teer wax nañ leen ko mooy ñett commandant Tivino commissaire Boursat ak brigadier lii ak lenn ci sëriñ si nekkoon njaareem ñu mel ni ñu sant kanji bañ ko teeroo nag ci buntu njaareem ba mu egsi ci loxol tubaab bi boobu la ci Modou Sow génne loxoom bàyyi ko commandant Tivino commandant Tivino ànd ak moom dugg nag biir njaareem bi mu duggee biir njaareem fan la dem ci kër commandant bi ci boppam fa la ko commandant bi yóbbu ana lu fa xew ci pukkus bu tuuti pantre bu tuuti ci misaal pukkus muy ab pantre la dugal Serigne foo xam ne ab laal sax xaju fa sakkantuma la ak bagage Serigne mu dugal ko fa nag ni ko nag fii nag doo fi génn damaa bëgg nga xam dañ ma laa dénk te it fii doo fi blague maanaam doo dax di dem ak a ñëw ndax boo dee dox nit ñi di la gis dañuy dajaloo ñëw ci yow te loolu la ñuy bañ. loolu yëpp woon koo xorñoñul rek tàmbali koo xorñoñul woon ko ni ko yaa ngi ci résident surveillée ci loxo nga nekk doo génn fenn ndax bëgguñ ko jaxasoog nit ñi waaye xanaa lu mbon mbon mënoon naa néeg ba mënoon naa xaw yaatu ko waaye ab pokos bu ndaw boo xam ne lalu xaju fu waxantu ma la ak bagage sëriñ bi sëriñ bi nekk fa ki may net ki nettali lii nag di ko suñ mu di waxee kii nettali lii ma leen di wax mu ngi fekke woon ci tay bi doon ndaw ca jamono yooyu muy sëriñ Mbàkke Jaxate yàlla na yàlla yokki leeram te ful ay ay mayam ak fayam sëriñ Mbàkke Jaxate waxoon nañ leen ci gone yu njaareem yi ca jamono yooyu bokk na ci ñi sëñ bi jëkk a tofloo maanaam ñi jëkk a topp ci moom ñi jëkk a jiblu ci moom ñi jëkk a ànd ak moom sëriñ Mbàkke Jaxate ci la bokk nee na moom ci boppam moom képp moo fa daan dugg ndax gone la di duyal sëñ bi ak satalaam ak di ko doxal ay yónneenam ci pokos bu ndaw boobu nga xam ni kenn du ko fa fekk mu nekk ci biir kër commandant bi nekk nekk nekk nekk nekk fa ci melokaan woowu ba jëmmi jamono tubaab bi ne ko nag léegi yaa ngi soog a ñëw nit ñi duñ leen may ñuy jaaban dem ak ñëw seetal léegi ñenn nga bëgguñu ñëw ci yow di fi nekk loolu mën nañ la koo may waaye da ngay wax ñu bind seen tur. ba keneen fuñ kuñ fi gis ku dul ñooñu rek ñu génne la ci biti sëriñ bi ne ko bu fekkee nag kay yéen may may soxlawuma tubaab bi ne ko rek du ñàkk foo jaar di ñu jox ay nit yoo xam ne ngay bind seen tur mu ne ko kon bu dee loolu la demee bu munta ñàkk sëriñ Tuubaa ne ko bu mun ñàkk kon ñaar fukki nit ak juróom-ñett rek laa soxla mooy ñi may jàngal alxuraan loolu nag duñ ci sori waaye sëriñ bi ku xam ñaar fukk ak juróom-ñett muy 28 xaw ma lan la ci dëxëñ ak lu mu ci jublu waaye ku ne xam ne digganteem ak 28 muy ñaar fukki juróom-ñett ba ci sas yi mu sas ci jumaa ji ñaar fukki juróom-ñett yi nag saa su nekk ñoo ko daan jàngal alxuraan ñaar fukki nit ak juróom-ñett mu ni ko ñooñu rek laa soxla tubaab bi ni ko kon dinaa la jox ñaar dolli ci mu ni ko bu la neexee muy fan fanweer ñu bind seeni tur ñooñu rek ñoo ñëw ci sëriñ bi nekk ak moom waaye nag teewul bi ñu ñi yégée sëñ baa foofu nit ñi ñoom déglootuñ ko dañuy fexe ba dugg ci kër gi nekk fa di ñëw siyaara sëñ bi loolu nag bi mu amee ba ci yàgg biir gaje ak comma commissaire Boursat commandant da leen joxoon ordre ni leen bëccëg bu nekk na ngeen ñëw ci kër gi moom bu nekkee ci bureau na ngeen ci kër gi ngoon gu ne ngeen xool bu ngeen fi gisee kenn koo xam ne bokkul ci ñi ñu bind rek génn leen ko toroxal leen ko commissaire Boursat ak biir gaje lii duma nañu toroxal nañu def nañ lu re waaye nit ñi di forcé di dugg rek ku ñu génne ba dumala itam boo liggéey nga ñëwaat ku ñu toroxal nga ñëwaat mbir mi nag ci diggante boobu itam sëriñ bi daan na def léeg-léeg bu yoor yooree maanaam ay dix heures onze heures yéen xamul yoor yoor ay dix heures onze ci suba mu génn doxantu ba fii kër gi nekk tey fii ñu wax kër gu mag daan na doxantu yoor yoor ba foofu yàgg fa lool daana toogit ba guddi léeg-léeg mu génn ba guddi mu doxantu ba foofa yàgg fa lool dellu si waat loolu nag bi ko commandant yëgee maanaam commandant Tivino bi mu yëgee loolu la ko tere ni ko nag loolu moom day dakk dootu mën a nekk kër gi bul ko génnati ah sëriñ bi toog nekk fi mu nekkoon ci pokos bi génnatul ni ma waxee sëñ Mbàkke moo ko doon doxal yenn yi ci ay yónne yu muy soxla nit ñi nag di ñëw yematuñ ci di ñëw di siyaare sëriñ bi waaye léegi xam nga lu ñu def dañoo far nag di kuréel nag léegi ñenn ñi jàng alxuraan ci buntu kër commandant ñenn ñi yëkkati xasaay bi léegi nag loolu di am ba jabari commandant Tivino madame Tivino wax jëkkëram Tivino ni ko nag léegi seetal foo xam nga jëme ko fa nga yóbbu ko fa mu nekk fa waaye man mënatumaa nelaw ndax seen chanté yi ñuy chanté maanaam seen woy yi ñuy woy nee na mënatula nelaw kon nag léegi wax na jëkkëram commandant ni ko fexeel daal foo ko mën a yóbbu nga yóbbu ko ndax man ma am jàmm ak taalibeem yi muy discipline yi commandant wax sëriñ bi di woo ginnaaw noonu la demee léegi xam nga madame tuy noo jabari tubaab moom <laughs> waaw wax na rek soxna si wax mu daal di ko rek léegi kon damaa bëgg yow li ma wër bañ sori bureau bi mu ne ko li ma wër fii ci kër gi bañ bañ koo sori nga seet fu la fi neex ma jox la fa kër nga dëkk ko moom ko te doo ma sori ah léegi sëriñ bi bu leen fàtte ni sunu borom xamaloon na ko kon barab boobu mu doon dem yoor yor ak guddi di fa yàgg muy fii kër gu mag gu nekk tey sunu borom xamaloon na ko lu jiitu sëriñ bi ñëw ba foofu commandant. daggal ko fa jox ko ko mu moom ko léegi lew na sëriñ bi moo ko moom nga xam ni kooku mën nañ ko tuddi kon titre foncier ci jamonoy colon yi ñu bind la jox la mooy moo ko woo ba mu ñëw may ko fii kër gu mag nekk tey waaye sëriñ bi nu jànge ci moom benn leçon boo xam maa ngi koy bëgg a wax léegi egsi gu ma ci wax ji ñu jàng ci moom situation Sénégal bi nekk léegi ci mbirum suuf ak jël suufu su jàmbur ak nangu teereeb jàmbur ak jël toolu jàmbur ak nangam nangam nga xam ni loolu yépp conséquence néfaste yi muy def ci biir réew mi nit mënu ko xam déglu leen ni sëñ def lu toll ni commandant Tivino ci jamono colonel may la kër jox la suuf ni la am mu ngi nii yaa ko moom léegi xam nga ko kenn dootu wax nan déet boobu looy yi amagul waaye Sëriñ Tuubaa ca mbax ga ca sell ga ca mag ga ca sàmmonte ga ak la nga xamante ni mooy nekk digg ma boroomam ak lislaam ni mu ko bëggee ak àq mu dem ba egg fi kër gi nekk kër gu mag tey mu daal ni laajte ñu ana ko moom fii ñu ni ko fii di ku ñuy wax moo di Sidibé ab bambara la woon am na sax ñu naan séeréer si ñoo ko moomoon déedéet sëriñ si bu fekkee ni ñoo moomoon njaareem itam foofu bokku ci woon ndax sëriñ bi dañuy wool ma ko mooy fi ko tubaab bi jox mu ñëw mu ni ko moom moo di Sidibé di bambara mu ni ko dégg naa ne yaa moom barab bii tubaab bi jox na ma ko sax waaye damaa bëggan wàccoog àq di ci nekk nga wax ma looy laaj loo soxla ma jox la ko soog koo jël muy barab bi muy tere bi mu disbisibli ko ah lu may laaj <laughs> loolu de lu yomb lay doon ndax man mag laa mënatumaa bay te gone yi nangootuñoo bay boo ko jëlul it keneen dina ko jël kon loolu moom jërul sonn boo ko jëlul keneen di ko jël kon man awmu ci lenn lu laaj sëriñ bi ko waa dëgg la waaye nag munut a ñàkk nag ñu jox la nag loo xam ne dañ koy wàccoog moom moo di sibité ko ah waaw ginnaaw noonu la te mënut a ñàkk seetal loo ma jox rek sëñ Mbàkke Jaxate nee na maa ngi taxaw moo di sidi bee ngi taxaw sëriñ Tuubaa ngi taxaw ñoom ñett sëriñ bi ne ko dawal fa ca tubaab ba téyoon kër commandant mu wax sëñ Mbàkke Jaxate ko demal demal demal ca kër ga nga seet ay mbuusa nga fa mbuus moo ci attan nga yenn ko te indi ko sëñ Mbàkke Jaxate nee na samp xilam daw mooy nettali de fekke témoin bu taxaw sëñ Mbàkke Jaxate samp xilam dem ba ca pokkus ba fekk mbuus yi tege mu seet ba mu ca attan mu yenu ko bi mu ko yenoo nee nag ànd ak mu ba si sëriñ bi teg ko fi suuf fekk sëriñ bi taxaw moo di sidi bi nekk ci pàkk bi sëriñ bi ni tekki leen ko ñu tekki ko bi ñu ko tekkee mbuus mi saako bi ñu ngi ci fekk lu ñuy wax lami ndab ndab ndaa péll ca jamono yu mag yi am na lam yu ñu daan takk ñu daan wax lami ndaa péll ndami xaal lami xaalis yoo xam ne mbuus mi yëpp sëñ Mbàkke Jaxate nee na moom la ca attan moom la attan cee mën a yaru lépp la ndami laa ndaa péll la def sëriñ bi ni tekk leen ko teg ko mu jox ko mu di sud bi ni ko xanaa lii de mu ne ko lii kay mu wax la doy waaye ëpp na sax sëriñ Tuubaa loolu la fayee terrain bi nga xam ne moo di sidi moo ko moomoon te tubaab bi joxoon ko sëriñ Tuubaa moom ko ci turu tubaab bi ak colonisateur yi nga xam ni mu wëlbatikuwaat jël àq ci nekkoon fay Mody Sidibé lami ndaa pël yoo xam ni ab saaku la ba fees mu jox ko ko lii moo tax Serigne Touba kon jóge ci fi nga xamante ni bii mooy pokkus ba mu nekkoon ci kër commandant ñëw ci kër gi waaye léegi kon léegi kenn dootu laaj lan moo tax mu jóge fa fële ñëw fii xam nañ loolu léegi xanaa kër gi léegi dëkk bi njaareem la tuddoon ci wolof yi tudd ci tubaab yi Jurbel Sëriñ Tuubaa moom nu ngi ko tuddee war naa am nu ngi ko tuddee ah dafa am at moo xam ne bi sëriñtuwaa Tuubaa nekkee njariñ as tax ngeen jégal ma ginnaaw bi mu sancee kër gi nag sanc kër gi léegi moom ko nekk fi bañ defar ko mu woo ñi nga xam ne magi taalibe yi seex yu bari mu woo leen leen ñëw leen ngeen sanc si njariñ lenn ci magi taalibe yi ñëw bi ñëwee mu leen li ma ci jublu mooy eh, da ngeen di ma da ngeen may soxla ma di leen soxla kon warunoo sorente bàyyi leen fere yi ñu dem ci tool yi di ngeen nekk fi ndax dama leen di soxla ngeen ni ma soxla te kon bu ñu soree loolu du nekk loolu moo tax lenn ci magi taalibe yi nekk njariñ mag ñooñu nag bañ fa nekkee kon kër gi ba léegi amugul tur lan moo ko waral dañoo dem ba jëmmi jamono am soj mu fa amoon feebar benn mbas nga ko am soj la daal tawat ju metti ju amoon njariñ ju mettee méttee métti ñu bari faatu ci ñu bari faatu ci bi ñu faatoo nag commandant yëg ko foofu ci kër gu kër gu mag ci armeel yi ñu sol fa ñu bari commandant bi ñu ko waxee mu jóg ñëw nag ànd ko tàngooram bi mu ñëwee demul ci sëriñ bi ci kër gi dafa dem ci armeel ya di xool di constater xool ba xam ñi fi faatu nu mu toll nee nañ ba mu demee ci armeel yi lu mu bon bon fekk dafa 40 ñeent fukki bàmmeel yoo xam ni bu ñu leen suulul démb suul leen tey ñeent fukki bàmmeel yu bees yoo xam ni soj mi moo leen rey mbas moom wopp jooju moo leen rey commandant daal di jóg Serigne Mbacke Jaxate nee na maa ngi taxaw di fekke tubaab bi bi mu ñëwee ba tolloog fu ñu tund wi ñuy wax kër Cheikh Aydara ñi dëkk Njaareem ak ñi déglu te xam yoonu murit xam nañ ko kër ay Aydara ci Njaareem tund woowu bi fa commandant bi egsee fi la taxaw nee na ginnaaw bu mu xoolee bàmmeel yi ba noppi ànd ak service de jeune ñu constaté lépp mu ñëw taxaw ci tund bi ci kër Cheikh Aydara ni woo leen ma sëriñ bi ñu dem fekk sëriñ bi ci kër ga ni ko wuyul commandant waaye jamono yi commandant di wolu sëriñ bi itam xam naa sëñ dàmbay dina ko jàngat acte yi sëñ bi def mooy jamono yi commandant di wolu sëñ bi daa fekk timis di bëgg egg si waxtu timis di bëgg julli di bëgg a jot biñ ñëwee wax ko mu ne ko nee leen na ma may ba ñu julli timis ba noppi daal di julli timis ba def li muy def lépp moom sëriñ bi sëñ Mbàkke Jaxate nee na keroog bi muy dem maa ngi topp ci ginnaawam ñu ànd dem ba ci commandant biñ ñëwee ci tund woowu ci kër Cheikh Aydara fi la ko fekk nee na commandant ni ko waaw yow de sa yàlla ji jaaxal na ma yow xanaa li nga daj sa yàlla jëpp ak li nga ko defal lépp lépp xanaa mën na laa may bu la sa commandant woo mu may la boog nga wuyu sa commandant ba guddeeg bëccëg yaa ngi sa yàlla ji rek sa borom bi sëriñ bi ni ko daal di tàng foofu nag sëriñ bi daal di ànd ak ko tàngoor ni ko joxar bi ko xam nga sëriñ bi bu joxar bi ni joxar bi ni ko lii ma doon def yàlla dalaa bind bind ma digal ma ko digal la ko nga lànk ma nangu sa lànk googu nag du ma yóbbeeg bañ man boo amee looy wax boo amee looy so boo ma soxlaa wax ma li ma soxlaa ni ko yàlla dama bind bind la digal la ko digal ma ko nga lànk ma nangu lànk gi nga lànk nag du ma yóbbee man may bañ boo amee looy sox gaawal léegi wax ma ko tubaab bi ah, ne li ma lay wax leen rek la mooy dama xam ne yow dëkk bii nga xam ne fi nga nekk muy kër gu mag rek kër gu mag nga xam réew la da rek ñëpp am nañ fay kër feebar bi am fi maanaam tawat ji am fi wopp ji am fi ba li ci dee kenn xamul nu mu toll dem naa ci armeel yi ba ñëw cimetière ya laa jógee dem naa xool naa léegi damay lakk damay lakk kër damay lakk kër yëpp laay lakk maanaam bañ bu fekkee day wàllaate mu ne ko damay lakk kër yëpp ndax léegi yow lu tax bi xewee rek yónneewoo ci man xamal ma ko waaye nga bàyyi ba lu toll nii faatu fi sëriñ bi ni ko mu ni ko léegi li ma bëgg mooy nga wutal ma sëriñ Tuubaa Tuubaa bi ko ni nga wutal ma koo xam ni mooy yor dëkk bi doon chef de village yow taloo lu dul sa borom bu ëllëgee lu xewati moom mu dox sama digg yow ñëw wax ma ko ndax yow taloo du sa borom bi moom lu xew rek nga wax ko mu ñëw wax ma ko loolu mun a ñàkk. sëriñ bi ni ko waaw ñaar yi nga wax yëpp bu fekkee ne lu jëm ci wàllu tawat ji la tawat moom maa ngi lay xamal ni la yàllaa koy tegee yàllaa koy teggee te ci coobareem la koy tege ci la koy teggee kon loo ma yow ma jóg di la ko wax. yàllaa koy tege yàllaa koy teggee ci coobareem la koy tege ci ci ci coobareem la koy tege ci coobareem la koy teggee ma dina xam ne nag kon jëraloo ba jug di la ko wax boobu ma leeral la ko bu fekkee nag mbirum li nga xam ne mooy borom dëkk bi nga bëgg mu mu mu wutal ko ku borom ma ba suba ci waxtu yi boo fi dellusee danaa la wax kan mooy borom dëkk bi tubaab bi daal di tàggoog foofu bi mu tàggoog moom foofu daal di dellu. sëriñ bi nag woo magi taalibe yi lenn ci ñoom ñi ñu ciy mën a tudd rek bari woon nañ lool mel ni sëñ Mor Absolo sëñ Mandumbe Mbàkke sëriñ saa Jeen ak ñooñu rek magi taalibe yi mu woo leen ba mu ñëw ba ñëw mu ni leen tubaab bi de na dafa dama daa bëgg ma wutal dëkk bi boroom maanaam ab maire daal wala chef de village li ngeen ko xamee rek waaw koo xam daal mooy dox li léegi nag damaa bëgg yéen ngeen dem xool waxtaan ci seen biir ku ngeen juboo rek ba jàpp moom la ngeen ñëw wax ko ko wa shawirhum fil amri consulté le xoolal Serigne Touba Serigne Touba laa de woo mag ñi ba ñëw ne dem leen ngeen waxtaan ci seen biir ba juboo ku ngeen xalaat ni moo gën rek ngeen ñëw wax ma ko mag ñi dem wax dem daje ba ñu daje di waxtaan ñuy jël kàddu ba egsi ci sëñ Mor Absolo sëñ Mor Absolo sax dama jot ne dañu wax ne moo jëkk jël wala bokk ca topp mu leen waxtaan moom jërul muy gudd sëñ Balla Coro rakki sëriñ bi la sëriñ Balla Coro Mbàkke rakki sëriñ bi la ñoo bokk bàyyi te mi ngi soog a ñëw ci dëkk bi jóge jaaxal te dégg na français mën naa wax ak tubaab bi bu xool keneen ku kii mag ñépp ni ah sëñ Mor ab soxna dégg rakki sëriñ bi la mu ngi soog a ñëw jóge jaaxal dégg na tubaab te mën naa wax ak tubaab bi ñu dellu ci sëriñ ba pour xamal ko li ñu waxtaan ba jubóo ci ñoom choix bi ñu am ki tànn bi ñu ñëwee ci sëriñ bi ni ko ah Mbàkke nun de sëñ Balla Coro lañ tànn mu ne naam mos jubóo ngeen ci seen borom naam moos suñu borom dëppoo na ci yéen ndax boo bindee jurbel boo bindee jurbel jurbel boo ko bindee mu nekk nii Jurbel mu nekk nii nee na soo ko soo ko wëlbatee soo ko jutalee rek Balla Coro la lay jox Balla Coro la lay jox mu leen jiwoo ngeen seeg sa foofu Jurbel soo ko renversé soo ko safaanee mu jox la Balla Coro mu leen dëppoo ngeen si suñu borom nangu na loolu loolu moo tax kon dëkk bi daal di wëlbatiku nag am koo xam ni dañ koy teg ci loxoom loolu lañ bëggoon ñu leeral ko waaye tubaab bi itam xamal na ko ni ko waaw xanaa ab dëkk dana am aw waxoon naa leen tubaab bi Jurbel la ko tudde nit ñi tudde ko Njaaréem tubaab bi ni ko xanaa ab dëkk dina am aw tur wala kër dina am aw tur sëñ Mbàkke Jaxate nee sëriñ bi daa moom la yónni daa ak xalima moom la yónni néew dani man la yónni daa ak xalima ma dem ci kër gi jëli ak daa ak xalima bu rëdd aw rëdd wu ku nii ku boo xamul mooy lu rong bind mu def nii mu rong nee na mu bind ci biir al buqaatul mubaarakatu pàkk bu barkeel bi kon nit ñee wax lépp waaye Sëriñ moom fi mu tuddee kër gu mag mooy al buqaatul mubaaraka pàkk bu barkeel bi sëñ Mbàkke Jaxate nee na maa ngi taxaw maa jëli woon daaja ak xalima bi ko sëñ bi bind ñu jox ko tubaab bi ni ko nii la dëkk bi tudd kon dëkk bi am na chef de village léegi muy sëñ Balla Coro wala ku jiite dëkk bi ci ndigalu sëriñ bi ginnaaw bu bàyyee mag ñi ak seen choix ñu xalaat ba xalaat ba jubóo ni kii dañ jubóo nañ ci mu wutal ko autorité muy albuqaatul mubaaraka léeg-léeg nag nga dégg ñu ne kër gu mag kër gu mag xëy na li tax ñu di ko wax jëmbul xëy na dina dina dina ci mën a gëstuwaat ba xam ko waaye ala kulli xaal rek li gën a li gën a am solo booy kër gu ndaw ga moom fa la nekkoon kër commandant loolu du woon këram waaye kër gi itam dina ci ñëw yéen bii di waxtaan wi di ñëw ci surface bi nan la toll ak ingénierie bi ne ci biir ak ñaata néeg nekkoon ci biir yooyu yëpp dañ ci dikk waaye li ma bëgg a wax foofu mooy yéen ñi may seetaan ñëpp. képp koo xam da ngaa jóge Touba boo bëggee xam fi sëriñ bi jëkkoon wàcc pokos bi ñu ko dugaloon soo rombee kër gu mag tuubaa nga jógee xam nga kër sa ndeyjoor lay nekk soo jógee Touba kër gi sa ndeyjoor lay nekk bu miiru kër gi jeexee xuru woowu xuru wi xur wi xuru woowu ci ginnaaw kër gi boo ko rombee bay tourner sa droite bay wëlbati su ko droite boo wëlbati ko nii nga def defaat nii fi nga naan nii rek kër googu nga xam ne tabaxi tubaab yi la léegi sax ñu ngi koy defaraat ndax président Abdoulaye Wade moo ko jënd ci xaalis jox ko addi Sëñ Tuubaa kër commandant gi mu dëkkoon di atte kër commandant gi mu dugaloon Sëñ Tuubaa def ko pukkus Abdoulaye Wade moo ko jënd def ko ci turu Sëriñ Tuubaa léegi Sëñ Tuubaa moo ko moom kër commandant nag moo doon kër googu nga xam ni bu bu kër gu mag jeexee rek ba nga jàdd sa ndeyjoor fu tali bi jàddee rek bu jàddaatee rek ci wetu ci école boobu kër su ndaw soos ci koñ bi rek foofu la commandant dikkoon bu dee da ngaa jóge Dakar nag il faut nga xam njaarim lool fi ngay war a jàdd rek jëm kër gu mag ci xur bi mooy kër gi seen ndeyjoor waaw loolu mooy kër gi nga xamante ni bii jëkkoon na faa nekk euh, sëriñ bi itam mbas moom nga xam ne moo amoon muy wopp jooju man nañ leen cee wax loo xam ni euh, xam naa lu yéeme ndax noo ngi waxtaane loolu dugg ci njaarim te calculé wuñ ko woon mu tolloog jamono jii nu wax ni ñu ni Sénégal am na lu fi xew bàyyi ak jàngkat yi loolu gëstukat yi wala ma bàyyi daal waaye li ma bëgg wax rek mooy ci jamono jii ñuy waxee loolu bu noppee xanaa ñaan ci Serigne ñeenti baatam yooyu mu waxoon na koy ñaan ci barkeb njaareem barkeb boqaatul mubaaraka ak fii nu nekk ci Saxum Touba tey di ko ñaan Serigne Touba di la fi woo ci ni nga ni nga li nga woon ci màggal gi nu ñaan la ko dañ la koy ñaan de juboo nga ak sa borom mooy nee nga tawat yàllaa koy tege yàllaa koy teggee ci coobareem la koy tege ci coobareem la koy tege kon jërul nga jërul nga di ko wax commandant nun nag jaral na nun wax la ko yow mi jubóog sa borom nu ñaan la lii nga xam ni yàlla woyefal ko ci suñu kaw waaye woyefal ko ci àdduna bépp nag jullit ñépp rawatina dëkk bi li ko wër yépp woyefal ko Sëriñ Tuubaa noo ngi tawasul ci yow ca nga waxoon commandant keroo waaye nag mu xam ni dogalub suñu borom ndax bu leen fàtte ni ci biir mbas boobu xewoon soj moomu xewoon njaareem ba ñeen fukk am ci ñu ca am na ci soxna su mag ummahatul muminin waa barsaq yi ñu ñu ñu ñu tedd ñooñee ci njabootu sëriñ bi waa kër sëriñ bi soxna Mariama Jaxate ci la demee soxna Mariama Jaxate nag am na lum doon ci Cheikh Abdoul Ahad ak sëriñ Chouaïbou soxna Mariama Jaxate ca soj mu métti moomee ca la suñ borom dogalee la muy dogal ci moom loolu itam nu xamale laale ko ci biir soxna Mariama Jaxate am na lu mu doon ci Cheikh Abdoul Ahad ak Serigne Souhaïbou loolu teggi ni wax la ku ko dégg di nga xam ni bëgg a wax waaw way kon bokk yi lii mooy li nga xam ni moom lañ tëgg tey indi ko ci biir sëriñ bi duggee njaarim rek li ci des lépp nag naa leen kër géeg li ci nekk ak yépp jumaa jeeg lépp dara dara dara duñ koy bàyyi insha allah rabbi kon foofu lañ bëgg a yem tey xanaa dikk rek ci loo xam ni dañ noonu dañuy waxtaan ba noppi soog cee dikk liñ ciy jiital nag mooy inna lillahi wa inna ilayhi raji'una inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ci yàlla leen jóge ci yàlla ñuy dellu noo ngi ànd ci dogalu bi yàlla suñu borom bi mu bette lool nag mën a indi wéetaay lool bette lool waaye lépp nag du lu neexul yàlla day lu neex yàlla moo tax ah, yàlla nag ginnaaw moom lu ko neex ginnaaw ku nekk boo amee lu la neex da ngay bëgg ku ku ku ànd ak yow ca la neex kenn ku nekk boo amee lu neex da ngay bëgg ku ànd ak yow ca neex lii nag yàlla la neex ku ci bëggatu ànd ak yàlla nag wala doo ko muñ ah bu boobaa nag mel na ni kon delloo suñu borom jukkal kon noo ngi ànd ci bi yàlla di wax jëm yii fi jóge ndax eh, fi may tudd tey du am na ñu ci ñu ci xam lool waaye am na ñoo xam sax mën na am ñenn ñi duñ leen xam waaye dama ciy jiital nag ci ñaan gi euh, di ko jaale Cheikh Mouhamadou Mountakha jàll mu ci moom lay jaar jàll ci ñépp ki ma ciy jiital mooy soxna Roqee Jaxate soxna dama Jaxate doon rekk Serigne Cheikh Jaxate wàccub liggéey fii ci Touba Darou Manane moom wujji boromam teg ci itam kii di sëñ Atou Diagne jiite woon daaira xisbu tarqiya teg ci sëriñ Jibril Cissé kon li ñu bëgg wax rek mooy am na ñeneen ñu dem ñoo xam ne xamuñu leen wala xames na leen waaye egsi wu fi waaye dañu xam ni ñii dem ñépp kenn ku ci nekk seereel na sa digg sëriñ Tuubaa sa diggante ak sëriñ jullit loo xam ne bañ lay denc àdduna sépp dégg nañ ko kon ñu ngi koy jaale euh, dongoy daara Hizbut Tarqiyyah yépp ci biir réew mi ci bitim réew fépp noo ngi leen koy jaale waaye bu ñu ko jaalee sëñ Mountakha jaale nañ ko tariqatul muridina bi yépp jaare nañ ko ummal islam yépp nekkoon na ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa di ci def lim mën ak lim mun wane ci njàmbaar wane ci lu ne ànd ak bokki taalibe yi ak kon yàlla na ko yàlla jéggal yàlla na ko yàlla jéggal te teg ko ci loxol Cheikhul Khadim yàlla ko yàlla jéggal te teg ko ci loxol Cheikhul Khadim loolu rek mooy wax ci ak njabootam noo ngi ñaan yàlla bi nga xam ne moo mën a mottale te wér na ne amoon na yum dese ci yéene loole bu mu nekk njabootam ñu nekk ca daara ji ñëpp yàlla na li suñu borom kattanal ñu mën a mottali yéene yooyee ba weesu ko ci lañ doon mébét ak lam doon mébét te yàlla leen ko yàlla defal di ko ñaanal ñëpp nu ngi koy jaare daal bokki taalibe yi bokki jullit yi réew mi yëpp soxna Daba Jaxate moom itam doon doomi Serigne Fatou Jaxate moom Serigne Yéri Jaxate ñu ngi koy jaale bokk yëpp ca jàmm ja ak diine ja ak murite ga koy jaale ñëpp kon bokk yi loolu mënuma ko ci yoon a bañ a dugal ngir nu xam ni kenn ku ne xanaa jàngi fukki lixlaas rek ak benn yéene leen yool ba ak ñañ fa fekk ñëpp ci taalibe ak ci jullit sëñ Jibril Cissé moom itam doon mag ci pap alaaji papa ñang moom itam di sëtub soxna Ana fay ñu koy ñaanal moom itam suñu borom jël na ko yóbbu ko kon yàlla na leen yàlla teeru ci àjjana yi gën a kawe te teg loxo ci seenu njaboot ñoom ñëpp ginnaaw loolu nag duñu fi wax lu bari ci wàll googu ndax am na waxtaan woo xam ne ci la loolu di gën a yaatoo mooy waxtaan yu ñuy def talaata bu soobee yàlla te xam ngeen wii jàll dañ ko rediffuser ak sëñ murit waxtaan woowu talaata ji nu jëm yéen ak Saxum tubaab point net ak Saxum Touba l'officiel ci YouTube bi man ngeen di topp waxtaan yépp ak yeneen émission yépp talaata incha allah yaakaar naa ni vingt lay doon euh, ñaar fukki waxtu bu jotee ci guddi incha allah jataayu Mouride Saarix yeneen yi nga xam ne nag war nañ koo wax yeneen yi yeneen yeneen foofu lañ koy mën a wax waaye fii moom dañ ko tënk rek ci nekku sëriñ bi njaareem ak njaal mi ñu doon def tey di ñaanal bokk yooyu nga xam ne ñoo fi jóge wax nañ nag bokk yi laaj saa su nekk nu ñuy jàppe site bi xëy na ñi jàngul ñooy ñooy sonn ci loolu waaye ku yor téléphone boo amee connexion boo defee Saxum Touba l'officiel A X U M Touba Saxum Touba boo ko defee daal koy am ci YouTube bi boo defee Saxum Touba point net daal di koy am yi ci nekk yépp ñiy laaj guddi bëccëg di téléphoné képp koo xam ne bëgg nga cee am loo ciy laaj itam wala noo ci jàppee. mën ngaa woote ci 77 854 12 54 77 854 12 54 wala 77 264 29 25 kon loolu mooy li nga xamante ni bii mooy jaarukaay bi noo ngi gërëm ñëpp nag di sant ci téléphone yi woote yeeg bépp sëñ Dame mbay mi nga xam nag mooy def jàngati émission yépp yi ci sax mi buñ ci def dina def jàngat bi noo ngi bàyyi loo xel bokk yi ni muy jàngate émission yi dëgg dëgg dëgg dëgg far na doon sax ab émission moom itam ñu ngi koy sant di ko gërëm mu nekk ci bitim réew waaye day topp waxtaan wi te lu jàll mu jàngat ko ñu wëlbati ko dugal ko ci biir ñi seetaanat ko muy sëriñ Dame Mbaye moom nga xam ne way juram mooy caatu sëriñ buubu mbay mi nga xamante ni bii kenn la woon ci magi sëriñ Tuubaa yi te nekk ci bokk ci waa kër borom daaru kon noo ngi sant yëpp sëriñ noo ngi lay sant ci njàngale mu kawe mi lool ci Laxdari bi sëñ Mor Touré ñu ngi lay sant ci liggéey bi ak passé bi di sant Serigne Makhtar Mbuub Silatu Rahim moom suba rek bu soobee yàlla suba ci 11h ba midi yaakaar naa léegi nit ñi moom kenn bëggatu koo tardé ndax ni muy leeralee bokk gi ci dëkk bi ak réew mi ak jom jeeg ngor geeg yu bari di ko dellu si muy sëñ Makhtar Mbuub Silatu Rahim ñu ngi koy sant bu baax a baax loolu daal moom lañu waxoon ni dinañ ko indi tey ci ajuma ji. àndoon ak sëñ Murid Dia Murid Saadix mu nekkoon ci wàllu régie bi ak Serigne Cheikh Loum mi nga xamante ni bi moo nekk ci wetam kon ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm di ñaan yàlla suñu borom tawféexal nu ba li ñu ëmb yéene ko nu mën koo yulli ba taalib yëpp jariñoo ko ci bi xormati Mustafa sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala émission yi nag bu ci nekk am na lañ koy rédiviser di ko rédiviser waaye suba daal li war a am mooy 11h sëñ Maxtaar boobu la dimanche Serigne Mor Touré ci ay ay yóbbaloo ay bis bi wala xew-xewu ay bis bi jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh xanaa rek li ma leen wax leen talaata ci laay mën a wax ci Serigne Daara alquran boobu ci laay mën a wax ci yu baree bare bari ndax lii moom dañ koo jagleel rek mu tënku ci Serigne bi nii ngir ñëpp mën cee jëriñoo jërë ngeen jëf alhamdulillahi alkarim silmilan ala سكرته لأنه قد ساخني لوتني به نفى ما أنفني